maintenant l' affaire F24 moi je dama bokk ci ñi nga xam ni dama ne F24 am nañ droit woote seen ndaje parce que ba ñuy nekk opposition dañu woote woon suñu assise nationale. ba génn ci ay conclusion F24 pour man am nañ droit woote seen dialogue n'est-ce pas heureusement ba leen ko yoon mayulee coow am na ci mais li xew kër gàkku man duma ko cautionné man Adama Fall en tant que homme public parce damay def politique. te man suma dama am droit d'assemblée rassemblement nangam même si c'est encadré par le code par le code euh, par le code pénal et code procédure pénale donc dafa dafa leer sur cette question là n'est-ce pas F24 en tant que cadre am nañ droit di toog di wax di wax li ñuy wax am nañ ci droit am ngeen droit def li ngeen defan am ngeen droit bañ a uyu yi sax jalo am ngeen droit bi le droit vous le donne parce que am ngeen liberté boobu te kenn du leen ko tere mais li ma ciy ragal mooy les conclusions qui seront issues de ce dialogue présidentielle daf leen di concerner ñoom daf leen di lié.